Wow, mangi kontan kontaan ci dalal ni ngeen ñëwee ci man nii pour am euh, xibaar bi déggee ko ci sama làmmiñu bopp loolu am na ci solo <coughs> maa leen di sargal ci loolu euh, waaw man maa yónnee benn bataaxal euh, kuréel boobu ñuy wax plateforme citoyenne aar li nu bokk wax leen ni daal jàpp naa sama bopp bis ni ki tey àndatuma ci boobu kuréel bokkatuma ci ndax dama gisatul lu ma doy ak gisatuma ni la ñu tëraloon ak jubluwaay yi nga xam ne ci lañ dëppoo woon dama gis ne ñu ngi koy wàcc yoon euh, ma wax ci la ma ca waroon a wax fañ ko war a waxee ci biir suñuy waxtaan mu mel ne dégluwuñ ma mu mel ne am na ñeneen ñoo xam ni jubluwaay bi ñu ci am beneen la ma gis ne euh, du ma nitu fitna waaye itam duma ma koo xam ni tamit dañ may jàpp yeew ma di ma yóbbu ci loo xam ni àndul ak sama gëm-gëm loolu moo tax ma téye sama bokk ci euh, plateforme citoyenne aar li nu bokk. Euh, lu ma neexul bokk na ci euh, su ma ko tënkee mooy ni dafa am ay jubluwaay yu ñu amoon tubaab di ko wax objectif jubluwaay dama gis ne ñu ngi koy wàcc parce que su ma déggee léegi ñu bokk ci plateforme bi di wax léegi <clears throat> affaire ñi luubal alalu réew mi ñi luubal pétrole bi nangam ak nangam wala ay termes lu mel ne criminel voleur. Euh, loolu duma ci dire. parce que ñun suñu nekul won atté kenn suñu mo don laccé mbir yi mu <clears throat> gouvernement bi wax ñu contrat yi nan la signé est-ce que ñëriñu Sénégal mo ngi ci wala ñeneen ñi liñ ciy wax mo xam parti politique euh, mo xam société civile BBC liñ ciy wax lan la liñ Sall président bi li mu signé euh, war ko wax rapport présentation bi wax rapport président nee na jotu ko te xëy na jot na ko ñun li ñu bëggoon rek mooy loolu mu leer te ma gis ne bi président njëkkee wax ak ñi mu àndal dañu waxoon ni daanaka seen yoon nekku ci président waxoon na loolu ñëpp dégg ma ma ne li mu wax c'est pas un discours républicain ay seytaane ay ay ay rambaaj ñoo fi nekk di wax ma gis ne wax boobu du waxu président mais comme dellu na ginnaaw ci loolu ba wax ne léegi procureur na jël dossier bi ba dig commencé na déglu ay nit ma gis ne kon li tubaab di wax c'est une bonne kon pour man jaratul dàqante ci mbedd yeeg yoy waye nañ gëna sét rek fexé ba lool yépp egg ba fi mu egg ñu kon suñu liggéey euh, mais kon légui di wax né wa nguur gi ñoo sacc pétrole bék euh, nangam ak nangam gis na né ñu gi bëgg jël place justice benen bi euh, moy ni dama gis ne méthode de lutte yi ci moy né amna ci ay xalé yo xamni ci biir plateforme bi dafa melni ñom ñoom daal li ñu tam ci dàqanteeg ak yi ci mbedd yeeg yoy mom nañ fa bëgg indi te ñun ci suñu expérience gis nañu né loolu bu doon soppi réew mi kon xëy na euh, réew mi du mel nii mais war nañ ko waxtaanee teg ko ci yeneen anam mais loolu yëpp bi ma ko waxee daal dafa mel ni ñi ëpp ci plateforme bi neneen lañ gisee mbir mi ma ne kon naa leen bàyyi ñu dem man tam ma seet nan lay continuer sama xeex ci euh, ci ci lépp loo xam ni gis naa ni njëriñu réew maa ngi ci. Euh, neexuma dara parce que man parewuma tey benn yoon pour di woo ay nit ay sénégalais comme man te ay nawle laa leen jàppee am war ma ci ñoom. rawatina ay xale yu ndaw ñuy daw ci mbedd yi ñu leen di lacrymogène ñii ñu damb leen ñii ñu tëj leen kaso euh, wala ñuy daw ci mbedd yi dugg ci kër jàmbur ñu sànni fa ay lacrymogène gaañ fa ay xale loolu yëpp euh, gis naa ni mën na bañ a demee noonu euh, te man tamit légaliste la bi nga xamee ni préfet bi wax na ni du ma ko autorisé mënoon nañ gën a waxtaan tëralee ko neneen noo xam ni mën na tax préfet bi nangu ko parce que préfet bi mënul taxaw rek ne lépp lu aar lu nu bokk organiser dama koy tere mënul nekk mën na tere benn yoon mais ñi am expérience xam nañ ni après boo ñëwaatee présenté ko ko mu gën a xam ñan la euh, kon war nañ ko mën def mais dama gis ne daal ci biir plateforme bi am na ñoo xam ne ñoom lu ñu xalaat daal mooy nañu jàmmarloo ak ñoom euh, gis naa sax ñuy wax ci ñoom naan constitution bi moo waxee ni war nañu def rassemblement wala constitution préfet mënu ko tere loolu xaw na ma tiital nag parce que même bu ko constitution waxee xam nañ ne préfet bi mooy def quand même autorisation bi bu ma gisee tendance yu mel noonu ma gis ne daal euh, pour man dafa mel ni affaire xeex ak Euh, xëccok teeg nguur gi moo tax a jóg ñi. bi ñuy def lépa dàqante beeg dugg na fi jaar na euh lolu mu ngok man la gëna jappé euh légui euh waroon nañ tok gëna waxtaan est-ce que aljuma bi euh, war nañ ko defaatee nonu ak tam ni la ko waxé sank suma gisé ci plateforme bi ñen ñi euh, di wax né constitution mo wax né am nañ droit rassemblement marche mu neex mu naqari dañ koy def. loolu tam dafa may jaaxal parce que xam nañ ne préfet quand constitution boobu tam may na ko mu tere néew ma su teree jaadu na mais <laughs> comme kilifa la bu tere man dama gëm ne suñu continuer noonu euh, fitna mën na yaatu lool ci réew mi parce que ku nekk boo waxee ni man li ma gis ne mooy yoon loolu laay def euh, damay indi fitna man kon nekkuma ci ci ci wàll boobu. kon pour man gis naa ni rassemblement bi jarul def trop doole alors que am na lu bëri lu ñu war a gën a wax wax ak Sénégalais yi ñuy wax sensibilisation loolu daana ko ci dara presque. kon jarul yàkkamti dem di mbëkkante nguur gi di dàqante ci mbedd yi euh, peut-être li ma ci ragal euh, comme benn wax naa lenn li mooy ni may gis nii euh, worma bi ma am ci peuple sénégalais ak li ma yàgg a gis ñu leen koy defloo ba pare leneen xew jël ay xale génn leen ci mbedd mi ñiy faatu ci ñiy damm ci ñiy gaañu ci ñiy nekk kaso lu yàgg ba pare ña leen jiite woon ci yooyu ñenn si ñoom dem dugg ci nguur gi walla am ay post yu am solo ànd ak seen njaboot dem tukki wala feneen ay xale yu doon daw ci mbedd yi fii ci tur boobu ñoom tey ñu ngi situation yu metti loolu ñaanuma yàlla euh, defante loolu ak jeunes sénégalais yi surtout jeunes yi lay wax kooku kon su ma gisee ñoo xam ni dafa mel ne dañu bëgg a lu mel noonu duma ko ànd du ci nangu beneen bi mooy ay nit suñu ànd dañu war a dox ci ay principe su ma gisee ñu ne suñu objectif mi ngi nii ñu ci écarté wu ma attiré seen attention ne leen ah nañ dellu si ñenn ñi commencé di ma harceler di ma wane ni yow Euh, yaa xamul rek mais ñi ngi ci yoon bi dama naan ñii est-ce que dinaa mën a sori ñoom kon soo amee lu ma ci ragal mooy loolu ak lan bëgg naa tam réew mi lu ñu fi waxtaanee yëpp ñu def ko ci jàmm euh, di di wutal leeral mbiru pétrole ba tax nga taal fitna ci réew mi yëpp tam loo tam ànduma ci kon tam stabilité réew mi euh, dama ci dama ci bàyyi xel mais taxul ma ne bu ñu leeral yëf yi ku gis sama post yi ma mujjee yëpp dama ni ku bëgg jàmm ci réew dangay def lu leer boo dee nguur def lu leer ba pare tëddee njaaxanaay loolu mooy indi stabilité ci réew mais li ma dégg yéen say gouvernement bi di ko wax ànduma ci naan bu leen wax dara parce que day tax euh, ay ñu jóge pitim réew ñëw euh, jël réew meeg yooyu loolu moom ànduma ci boo bëggee réew mi bañ a vulnérable da nga fiy def dëgg tëddee njaaxanaay ba pare def lu leer man en général li may def sama conviction bopp laay def du ma def ndax dama jàpp ne am na ñoo xam ni ñu ngi topp sama ginnaaw di seen mais comme nit moo doxalee noonu am na ñoo xam ne ñoom dañuy wóolu nit euh, topp ci moom kon tam effectivement ñooñu dama leen di jox cër té amna ñuma gis ci Facebook ñu wax lool yow tax nga ñun ñu wóolu woon mbir mi mais légui so bayé nu ñi def wala ñi naan waaw amna sax euh, amna ko koo xam sax dafa ne ma traître nga parce que cause juste la nga daw et cetera bon euh ala kulli xaal ma ne ko no duma traître cause bi batay tey gëm naa juste na mais niñ koy doxalé la andul lool ça veut pas dire traître amna ko xamni xam ne ma officier bu démé guerre euh, dégg nga euh, bu bu bayé amna na nu koy tuddé moy déserteur.

Euh, lépp loo xam ni euh, war nañ ko mën a liggéeyandoo ensemble te ñu wóolu ci pare naa pour ñu ànd si euh, liggéey ko te réew mi tax waaye tam ñu teg ko ci yoon tam teg ko ci worma teg ko ci loo xam ne du indi fitna teg ko ci loo xam ne tamit lislaam du ma ci daan benn yoon parce que nag imaam laa balaa may def leen. bon xalab ma leen parce que xam nga xalab moom ku ma dajal si ñoom ci mbedd mi naa la jox cër am na si ñoom ñu ma ci suba waxtaan ak man tuuti dellu si nangam ku nekk dama koy jox cër waaye mais nag. Euh, lima may njëkk a tamit moi sama gëm-gëm dégg nga am na si ni wax nañ loo xam ni rafetlu naa ko ñu wax ne imam ah, li ñu gën a loon mooy imaam toog waaye nag dañ koy jox cër léegi terewul moom mën continuer lutte bi ñun tam ñu continuer ci ar li bok loolu man satisfaire na ma. côté bu nekk euh, koo ni euh, gis na ni am lu mu wax ak man wax ko ak man man tam tontu naa ko ko wara a tontu comme tamit ci sutura lañ ko def woma kon man tamit tontu ci sutura ak ci yar ak mais. pression yooyu euh, taxul ma jël euh, position bi donté won nak liñu tuddé pression nak ku wax la déglu parce que même suma nit woowee nan ma génn ci non non man magum dama parce que li tubab di wax ñàkkul mané tubab sax mais ñàkk mu am bu am parce que wala ñeneen wala man mi ma ko mais ku ma jox war ma wax ak man dama lay déglu soo paree damay réfléchir boo amee loo xam ne jàpp naa ni dëgg la ci nga wax naa ci bàyyi xel ni ma ciy bàyyi xel nag man la man la engagé mais encore une fois li tax ma retiré wu ci plateforme bi mooy sama appréciation personnelle ci ñaar yooyu on s'écarte des objectifs te boobu bu ma xasee ba nangu lool rek après du ma mën a taxaw ëllëg naan waaw ñu ne ah lu tax mu bàyyi ba léegi waxu ko léegi dañ ko corrompre wala dañ ko kii moo tax wax loolu moo tax ma teel ko wax wax naa ko fa ma ko war a waxee bàyyiwuñ ci xel deuxièmement méthode de lutte nee naa la ànduma ci euh, ci niñ ko bëgg defee nii mais ñaar yooyu surtout mooy les motivations principales am na yeneen problème interne yoo xam ne jarul ma ci dugg